dama koy ñaawlu dama parce que je pense que ba instant boobu match bi amoon benn incident tout se déroulait normalement match bi joué en plus man li ma si gën a jaaxal instant boobu ñoom ñi ngi woon temps fort teg ñi benn pression et jékki-jékki rek mu dégénéré ju xeer yi commencer, commencer de di sànni et tout heureusement euh, dañ koy sant yàlla alhamdulilah suñu supporter ils n'ont pas reposé. parce que suñu riposté je pense que di leneen mënoon na si mënoon na mënoon na si et tey jii je pense que situation bu ñuy déplorer et que tey jii ils ont pris leur responsabilité le match le match bi mënul reprendre maintenant les cest à euh, ligue bi ñoo a jël seen responsabilité pour xam exactement pour situer déjà responsabilité faute bi fan la jógee et après ñu jël seen décision et j'espère que cette fois dinañ jël ay euh, décision forte yoo xam ko jël pour arrêter la violence dans dans ce championnat parce que c'est pas du tout normal dans un match il y a amul incidence amul incidence majeure amul benn coow amul benn xeex équipe euh, adverse bi sen supporter dégénéré di sanni ay xeer di def euh, ay acte de vandalisme yo xamné dañ koy dañ koy ñaawlu di ko di ko déplorer et que tey jii je pense que ñu nek ci biir stade bi heureusement en plus le match était en direct je pense que ñepp gis nañ ko ñu sétane Sénégal yépp ñu do ñi sétane match bi gis nañ xam lu xew exactement xam fan la faute bi jógee je pense que tey jii nii y a même pas di toog fi di lam lamé je pense que tay il faut prendre une décision forte lo xamné da fay tax décision forte suñ ko jëlee dina tax yenen équipe suñ démé ba yenn supporter suñ démé bay def yenn acte yi ñu réfléchiraat né suñ ko défé dañuy lox seen équipe et que tay ji ni lu fi xewlu dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy ñaawlu tay moment bo xam ne que amul woon problème match bo xam ne amul benn problème et en plus le problème est que ñun on a pris nos responsabilités dem seeti waa Pikine semaine semaine B passé pour waxtaan ak ñoom pour raffermir raffermir euh, diggante bi pour defaraat diggante bi pour coow bañu am parce que li lañ doon bañ ñun ñi ñu dox suñu Tank. jël suñu tank dox dem si ñom fekk leen arène nationale ama ñom une réunion expliquante ñi ñi d'accord ci ay ci ay si mais malheureusement gis nañ lu fi xew tay jini je pense que tay jini nii li ñuy xaar xaaru ñu une décision forte de la ligue professionnelle ñu jël sen responsabilité situer le situer faute bi fan la fan la fan la fan la jóge ñi jël c'est seen euh, def sanctions et en plus de sanctions fortes des sanctions fortes yoo xam ne que ëllëg camp supporter su bay def ba am di def yenn euh, yenn réfléchir à deux fois pour def ko parce que dafay pénaliser équipe